asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki julli yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant cheikhna naa ahmadou bamba xaadimu rasul xanaa ñu dégtal leen rek julli gi nga xam ne moom la ñu amal ci Touba Mouré al Moubarak ci taxawaayu cheikh Mouhamadul Mamoun Bousso euh, waaye nag ci ndigalu cheikh Basiru Mbacke Abdoul Xaadar euh, ñu defe ko fii ci am péncam euh, sëriñ Mouhamadul Mamoun def gi def ni nga xamante ne si moom mooy noonu la ko sunna santaane waaye mu taxawee ko taxawe ko ak kilifa yu bare bare bare bare bari ràññee nañ ci sëriñ Samba Gueye sëriñ Ablaye Fall sëriñ Babakan ak mbooloo mu bare bare bare bari moo xam ne teewe nañ ca julli googee mbokki jigéen it gis nañ ci ku mel ne soxna Faati Kebe suñu yaay soxna Joor Wadd ak mbooloo mu bare bare bari teewe nañ foofee julli gi ca Touba mu de al Mubarak Cheikh Mouhamadul Mamoun nag bi mu jullee jiite mbooloo mi ba pare def na xutba bi ci arab waaye bi ay dénkaane yu ama ama ama solo euh, fa tabarakallahu ci jataayu tamit jëwriñ ji nga xamante ne si moom mooy jëwriñu daara ja mooy Serigne Fallou Ndiaye mi nga xam ne moom la fa Cheikh Mouhamadou Bachir teg waaye nag joxe ndigal ngir Cheikh Mouhamadul Mamoun jiite mbooloo mi foofee ca Touba mu di al mubaarak sëriñ bi nag bi mu defee julli gi ba pare def xutba bi ci arab euh, def na waxtaan wu ama am solo woo xam ne jëmale na ko ci mbokki taalibe yi waaye mu jëmale ko ci mbokki jullit bi wax na ci nawet bi wax ci politique bi wax na ci lépp lépp nag mu teg ko rek ci euh, jëfe ak bàyyi kon xam naa dañuy déglu Cheikh Mouhamadul Mamoun ginnaaw bi mu jullee ba pare xutba bi nga xam ne def na ko ci wolof.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 noo ngi feddaliwaat sunu kàddu jëme ko ci sunu bunt ci sëriñ Tuuba Seexul Xadiim jëwrin yonent bi alayhi di ko sant bu baax te di ko gërëm di ñaan yàlla buur bi subhaanahu wa taala mu yokkal nu ko ay ngërëm yéege ay maxaamam dollil ñu ko ay ja waaye defal ko njëggal moom njabootam nga sëriñ Tuuba Seexul Xadiim mboolem njabootuk boppam nga ak mboolem seexi boppam ya waaye rawatina mboolem xeetu yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam yéen way gëm yëpp mbokk yi ginnaaw bi ñu sante buur bi subhaanahu wa taala noo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara ci bis bu tedd bi di bisub tabaski ni ko mbokk mi Seydina Babacar mbay Diouf waxe sànq ci bi nu julli gi ba noppi ñu fas yéene ñëw ak yéen ci ndénkaan yoo xam ne mi ngi bàyyikoo ci kilifak dëkk bi di Touba Mouré al Moubarak muy Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikh Abdoul Khadir mbakke di ko ñaanal suñ borom subhaanahu wa taala bàyyil na ko fi mu gën a yàgg gën a wér gën a mucc waaye gën a ami ndam di ñaanal kilifaam gii nga xam ne moom la feggol di léppam nim ko doone woon ci magam yu baax ya moom kilifaam gii mu feggol di cheikh mahamadul muntaha murid sadex xadimu rasul ginnaaw bu nu ñaanee ci buur bi subhanahu wa taala mu yàggalal na ko fi moom cheikh mahamadul muntaha defal suñ borom defal ko ak wir ak mucc bàyyi kookum xelam ba naal yi mu naal ci lislaam naal ko ci yoonu murit sama defal ko ci tawféex ak taysiir lëkkale ko ci ak ndam ci saaxir ak ci baatin tam ànd ko bépp jullit bu mu bokkal ak ñaan rawatina taalibe murit yaakaar Sëriñ Tuuba mbokk yi tey la bisu Aïd di bisu tabaski di bis boo xam ne lamboona mbégte ci jullit bu ne ngir xéewal yi ñu ci suñu borom subhanahu wa taala xaaroo ci ñun jullit ñëpp waaye mu jëm ci suñu njaboot waaye bokk yi bu ñu delluwaatee ci taarix bis bi làmboona fitura ana lan mooy fitura ji mooy sababu bis bi ku ne xam na ne sunu maam Seydina Ibrahim alayhi salaam yàlla na suñu borom subhanahu wa taala dolli kóolute ci moom mom la suñu borom subhanahu wa taala digtaloon ndigal li ngir ci lu melne gent joxon ko ndigal ngir mu rendi domam ismaila muy ndigal lu bayiko ci buur bi subhanahu wa taala wacc ci jaamu bi yalla waye mu jëm ci alal ju sax ci xal te moy dom jo xamne ne na jafé jafé ngir am ko mok wétt mom andalon muy soxnam su bax sax su deggu sa su nangu sa su wakirlu je ca borom bi subhanahu wa taala te yalla kem kemt lay katanam suñ borom jox len ben takk ndeer képp yem ci muy len ci seen loxol te yaakaaru lool doonoon bekte ci seen jëm ci seen teway bi ndigalal yalla wacce ci sina ibrahim ngir mu rend dom ji way juru jigéen wi ci ak mom ngir ndigalal yalla li rafetlu la kilifaam bëgg a def ca doom ja ngir jëfe ndigalal sang boo xam ne moo yilif soxna si doom jiit it nangu baayam jëfe ndigalal yàlla ci moom te mooy mu tër ko ngir rendi ko ngir jullit bu gëm yàlla day déglu ndigalul yàlla tey topp ndigalul yàlla te di ko jëfe ci yërmande suñu borom subhanahu ci la gëdd sayyidina jibril alayhi ci ak farloom ne ko bu paaka bi dawee ba deret tuuru ci Ismaayla mii nga xam ne way juróom dëggal na te nangoon na ndigal li moom dëggal na te nangoon na ndigal li waaye way juróomu jigéen wi dëggal na te nangoon na ndigal li yow Seydina Jibril dinaa far saw ci àjjana ci la Seydina Jibril def farlu yi ci kàttanug suñu borom subhaanahu wa taala gim ko jagleel fëkk am xaaf ca àjjana wóotal ko doom jooji waroon a doon bisub tabaski tey mu doonoon lu tiis lu lamboo fitra ci yërmande suñ borom ci xeetu yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam bokk yi lii moo waral bis bi tey suñ borom digal ko mboolem jullit ñi ci képp ku ko man waaye nag mu teg ko ci mu nekk lu sunnawu laa yukallifu lahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa alayhi ma tasabat ila axiri al aya sama borom nee na gàcc ma benn jaam loo xam ne mënu ko waaye rawatina ci weer wi nga xam ne mooy tabaski képp koo ko xam ne sama borom man loo na la ko yàlla na ci yow ngir nga def ko soo ko amee nga def ko te ko ci dundal sunu Seydina Ibrahim ak ngërëmul yàlla soo ko amut te yaakaar ne boo ko legee lebee yaakaar nga ci ak pay ci lu àndut ak fitna ñeel na la su la yooyu yëpp lottee ci yow nag am nga ca ngan suñ borom wàccal na la ko nga yéene ko ci sa nga am yéene yi ja suñ borom fay la bokk yi tabaski nag aada ak bidaa amu ci aw yoon ndigal la yàlla digle tàmbalee ci tuur deret xar moo xam ne limub weer yañ ca wax juróom-ñeent jàpp fukk ba mu benn cër ci wàllu ba mu laago bu mu yées ci mboolem li mu weer yiñ ci wax bu feebar bu mu yooy ba mu egg ci lool waaye xar mu digg doomu muñ taamu mu tànneefu lool moom lañ ca sopp terees na it ku jaay ca ndawal ga terees na it ku ca génne luy tegtale ne jëflanteeg teraanga ji niru ne ay tànkum njëkki wala tànkub càmmoñ wala nangam wala nangam yooyu yëpp bokku ci ndawal rek lay jur terees na it jiitu imaam ci ak rendi njëkk de araam imaam dafa rendi ba noppi bokk yi lool nañ ci bàyyi xel na niñ wattandiko waale ci biir te reg lislaam googu ngir am tabaski mu mucc ayib te mooy bu ñu rendee gis nañ ne ñu bari dañuy topp aada yi ak bidaa bay fab ca deret ja di ko sëpp ci seeni loxo di laal ci seenub jë ak luñ ca mënta jublu ci xeeti faju loola day bokkut ci li nga xam ne sopp nañ ko ci tabaski nañ ko ci wattandiku kemtalaay kattan taamu nañ ko sarxe ca ndawal ga taamu nañ ci ku ci dimbali sa mbokkum dëkkandoo mu amoon yéene la rendi tey boroomu njaboot te lott ci rendi waaye nga suturaal ko ci jëflante ga ak jokkalante ga taamu nañ képp kola la feesal nga fay ko xaalis derba it sàkku nañ ku ko soxla nga nga nga nga nga sarax ko ko te yàlla tax wala nga may ko ko te yàlla tax waaye taamu wuñ nga diko jaay ba ca der ba kon soppuñu ko ca jaay dara waaye sopp nañ ko ca sàkk sarax te yàlla rek tax sopp nañ ko ca dimbali sa mbokkum julit te yàlla rek tax kon loolu mooy tabaski bokk yi bis la boo xam ne dundal gi lu yàlla la ci bépp julit war na góor war na jigéen war na mag war na ndaw ci képp koo xam ne man nga ko te ak lott gàccu ci saw loos bokk yi benn bis la nag boo xam ne suñ borom gàccu ci benn jaam loo xam munu ko ci ba tax nit di ci toggoo loo xam bu jàllee dafay sabab ci moom ay fitna ak i tolof tolof yoo xam ne caabi mën na ko caa féete ginnaaw te yàlla tegulu ko